alxaaji Mansour ne ma wa illa lamhatul basarul anabati asalu wajhal muhaymini muxlisan wa bihibbihi atawassalu inni ataytuka sailan نيل المنايا موئل إني أتيتك سائلا نيل المنايا موئل إني أتيتك سائلا نيل المنايا موئل إني أتيتك سائلا إلى المنى يا موئل الحاج منصورنا سيد القوم إني أتيتك سائلا إلى المنى يا موئل إني أتيتك سائلا إلى المنى يا موئل إني أتيت نيل المنى إني أتيت قصائد نيل يا إني أتيت قصائد نيل المنى إني أتيت قصائد نيل المنى يا مولى أتيتك سائلا نيل المنى منصور مؤمن إني أتيتك سائلا نيل المنى يا موئي يا إني أتيتك سائلا نيل المنى جئتك سائلا إلى المنى يا موئلا يا مولاي إني أتعيدك سائلا إني أتيتك سائلا إلى المنى يا مولاي إني أتيتك سائلا إلى المنى يا مولاي حاجي منصور نيني أتيت على منصور ممال إني أتيتك سائلا لا لا لا لا إني أتيتك سائلا إلى المنى صليا يا إلهي وجزيا آه ربي في الإيمان Hallelujah. Hallelujah. لنا إسوة يرى به الإمام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا يا سيد الهادي مالكنا وكان يمور هذا من يجالي موضوع يسر لنا إسوة يرى تجزي أنا أبدا أن محمدا قصب يننتي بسبب نور كان ينور هذا هذا يسر لنا إسوة يا ربي وسلم يا إلهي واجزي أنا أبدا محمدا سبينا وكان يامر هذا هذا يسر لنا إسوة يا ربي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمد كل صف أنت علم وصبر حياء والأمانة مجلس الكريم ورفع الصوت وسلم يا إلهي واجزيا أبدا محمد لا المختار بدفل مينا ولم يقوموا له إذ جاء علم موضوع كراهة المصطفى تشبيه بالعدم كليا يا إله واجزيا أبدا عن محمدنا المختار زلقي دمي ومن أتاه هدايا قل يكافئ فكن بي آسيان بالفعل والخالق وصليا يا إلهي وابقيا أبدا محمدا المختار كان دفلن لنا كلام فبذكر الله مفتتح مولد ذاك يختم يا طيب مختار وصلي أنا يا إلهي وجزي أنا أبانا عنا محمدا المختار تلقي دمي إذا تتبع للنبي ترى بأنه في سوى الخيرات لم يقعنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمد كنت صبيون من تيري معشر موتي لكي يلاقيني في أول عليه وصل أن يا إلهي وجزيا أبا مولانا عنا محمد أنا المختار ما مولانا أعددت حب رسول الله مولانا لكي يلاقيني في أول الظلام وصل أن يا إلهي وجزيا أبا مولانا عنا محمد الرحمن الرحيم إن للمتقين مفاذا قد وولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب يوم يقوم الروح والملائكة صفا min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala ashrafi wa aqrabi xalqihi ilayhi sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gannaaw ba ñu santatee sunu boroom subhanahu wa taala ñun ñépp ñu ànd di julli ci sang sangi yi muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu di ziyaara mbooleem ku bi ëmb di ci jiital ñi nga xam ni mooy sunu imaam ak mboolem ay nuwaabam wala mboolem aima yi fi nekk yépp su ma tuddee alxaaji Malick Ndoy suma way juur way juuru tabarakallahu ñu bari di sunu soppee di sunu bàyyi alxaaji su Mbay incha allahu taala dana ci ñëw ndax moom fa tabarakallahu làmmiñam macha allahu taala moo gën jot suñu làmmiñ allahuma la adur yal na ko yàlla gën a dëgëral moom dama wax ni senegal gépp ko sopp àdduna bépp ko sopp monde entier ñëpp ko sopp ndax taxawaayam ci réew mi kon am na kàdd yoo xam ne incha allahu taala moom lañ koy bàyyee mu jotal ko euh, lu jiitu ma koy jox kàddu ci turu sëtu maam alxaaji mbay jóob yépp góor jigéen mag ndaw dañu dajaloo ci néeg waxtaan tënk benn kàddu téléphoné ma daaw ma ñëw fii ci néeg bi maam Cheikh El Hadj daan dal ñu ni ma sunu wayjur sunu papa moo la jàngal kon am na mission boo xam ni dañ ko bëgg a confier daara ji mooy bu bis bi amatee ngeen jël organisation bi yépp lu war a am ca tànt ba ak ku fa war a jël kàddu ñu teg ko ci seen loxo kon daara jaa ngi ni fa tabaarakallaahu kon loolu ku ko def yal na yàlla fay leen asalaamaaleykum maa ngi ziar bu baax turaat ay dara mi xam ni mooy sëtu sang bu tedd ba tëdd ci Madinatul Munawwara di rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam di ko ziyaar ak di ak moom mi ngi wax léegi alxaaj Yusufa Jóob mu baax mii Alaaji Yuusu Jóob ni ko Aaj soo de invité woon naa ko ba dem këram waaye dama tukki woon rek ay dara waaye yaay sama sang di nuyu bu baax gërëm sama doom ji Seck Maamoor yaa ne yàlla guddal fan wi yàlla fi yàlla bàyyi yaakaar naa damay ñaambaas rek waaye li nga wax doy na sëkk di nekk nag sama sëriñ moom la ma wax ndeysaan alxaj bu sekk yow ko Tiwaawan nga <laughs> di nuyu sama sëriñ sama doomu sëriñ di sama sëriñ ndax képp ku nu yónni walla ku nu yabal daraja yi yabal moom ngay yore yaay Habib Sy waaye nag yaay doomu Sidi Boubacar mu Alaaji Mansour mu Cheikh Seydi Hadji Malick kon si maa ngi lay nuyu bu baax ak di la ziara ak di ziara sama xarit boobu nekk sa wetu ndey joor di alxaaji Tafsir Saaxo bu ilimaan Saaxo doy na sëkk baayam dafa ziar si Cheikh Seydi Hadji Malick ana magam ja xaritam ba soppem ba alxaaji ibrahima saaxo mi magam di sëriñam iliman saaxo daawul sol dàll tuwaawoon ndax cheikh sid alxaaji maani génn ci cheikh sid alxaaji maani génn ca sidi boubacar ak alaaji mansour dajeeg sama papa ni ko aman may mu ni ko saaxo mu ni ko sama doole jeex sama kàttan jeex na waaye lépp ma yaakaar rek cheikh sid alxaaji maani waaye may naa la saaxo collègue googu laay doxal digganteem ak man waaye ni yaato ak senegal ak Afrique ak le monde Europe ñëpp jàkk joo na seen àq bil àq bu laaj kan la Cheikh Seydi El Hadji Malick la waaye nag li muy yaatu yaatu yaatu ay mbaaw a ngi fi waay ak ak loo bëgg Cheikh Sidal Hadji Malick caare yi ngi fi waay ak loo bëgg Cheikh Sidal Hadji Malick Yoof a ngi fi waay ak loo bëgg Cheikh Sidal Hadji Malick waaye wakaama am néegu Cheikh Sidal Hadji Malick an naa fekk sama turandoo esprit tarix Cheikh Ahmed Tidiane ba alaaji Mansour cheikhul xaw mi mi gumay daan wax alaaji Malick oo bàyyi Mansour mu nekk fii am fi ñett fan wala ñeenti fan maag ak maan ak Samba Jabari ñu nekk ak sama turandoo Alaaji Mansuur Sidi Boubacar ñu toog ci xilaafa ga vingt-deux cinquante sept fanaan na fii ci néeg bii ngir barkeelu ci néegu Cheikh Seydi Alaaji Maalik nekk ci xol yi di Alaaji Abdul Aziz su ñëwee day sumi dàllam pour dugg ci néegu néeg boobu Cheikh Seydi Alaaji Maalik nekkoon ak rakkam bi Alaaji Abi kon wakaam day waxuñu ne gañe na waaye am na lu rëy xanaa ma mottali sama doom rek nuy sëgg bii toog Mouhamadou Nabi Guèye bàyyam yàlla rek bàyyam rasulullahi rek Guèye noo ngi lay jox cër bi la yàlla jox ci ak kan ak alxaaji Malick Ndoye mu baax mii ak kii xam ni en 1927 ba nu formé daayiratul kiram Sidi Boubacar bàyyam la daan yebal partout muy toj mi muy Cheikh Sidi Alhaji Malick di Maodo Sisi mii di Alhaji ma Sisi Pire noo ngi laa Sisi di la jox ci bi la yàlla jox ci ak nag ki xam ñaari daayira fi amoon daayiratu kiram ak daayira ahmadiya bu ñu wecc Alhaji Mansour Gueule Tapée wax ko ko ni ko duñuy formé daayira ahmadiya mu ne ndax yàllaa nga ci ak rasulullahi ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak Cheikh Omar ak Alhaji ko moom rekla mu mun kon nangul naa leen ko kon alxaaji Amadou Gueye bii mooy daayira président Ahmadiya sama turandoo cay waa jooju Ousmane Thiam surtout ma buso doomu sëy doog aadama ma buso Thiam mii maamam dafa am ñaar ñu bari woon loolu doole am keneen ku bari doole ca Cheikh Seydi El Hadji Malick ni maamam bu ëllëgee xëyal ca diw jox ko loxo ni ko baal ma maamam ni ko ah loo si ma def ko ba mu demee ca kër googu maamam duru génn ay rool weer ni ah day fetal si sunu góor yi ba mu joxee loxo kooka def ko ne lii du yow Cheikh Seydi El Hadji Malick kii moo représenté Diop Sy kuy Diop Sy moo dem ci hôpital ba ca France ni ndax chèque ñëw na fi ñu ne ko waaw am na ku ñu téléphoné léegi mu ngi indi chèque ñu ne ko pour kan mu ne ki xam ne mu ngi ci xol yi kenn du ko fàtte Seydi wax Mansour mu ne waa yegg seegul mu ne déedéet mu ne ko ne chèque gu millions yi nii maa ko joxe bañ na ko ba sant baayam a nga fa waaye Jóob si li ñëpp xam muy kenn ci Seydi Mouhamadou Mansour di kenn ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane yi yal na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér kon bu yónnee Ousmane Thiam ca dëgg-dëgg yónni na ko mu war a yónni ndax ñii du lu yàgg noo juddoondoo noo yaroondoo noo def lépp sëñ Tijaan si mbër nag ne ku amagul wërsëg amagoo eh, ne amagoo wërsëg amagoo personnalité jukko waaye Jóob si na meloon démb ak bërki démb rek lan la muy bëgg Cheikh Seydi Hadji Malick ak képp ku sosoo Cheikh Seydi Hadji Malick kon Ousmane boo demee ni ko wakaam ne gor yu baax nee nañu nu ngi koy gërëm te noo koy sant teraanga yëpp yegg si gis naa ko wallahi di nuyu sunu xarit bu baax bii nag alxaaji Madina Mbuub kaar boo gis mu jëm Tiwaawan kaar boo gis mu jëm Ndar nekk ay centaine de kaar ca kenn du fay kii moo koy joxe Madina Mbuub ngir kan ngir Sidi Boubacar ibnu Alaaji Mansuur ah moom noo ngi lay jox bi la yàlla jox ci noonu di nag bu baax sama doom wax na ko alxaaji Malick Diop ustaas booba boroom xam-xam booba bëgg yàlla sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu toll Cheikh Sidi alxaaji Malick bu nu ko tuddee ci bis bi loolu war na kon nu ngi bu baax ak nag sama xarit bii jaraaf Umar Gueye nu ngi ko nuyu damay mottali rek ak kan kii toog ministre taxul ma nuyu la déedéet day sama wëllëre di sama xarit di kan moom la ñu déggoo CEDEAO ba xam ni ci dëgg-dëgg keroog ba muy bàyyi dégg bu rëy ba mu def di Moussa Touré mii ancien ministre des finances say mbokk ak say xarit ak say soppe ak wakk am yëpp noo àndandoo di la nuyu fàttewu ma yëpp talaga yag ma daan defal ak bon ya as du fàtte du bu baax jaraaf Omar Gueye du nuyu bu baax sama xarit bii nag dend ak man sama turandoo di Seydi Mouhamadou Mansour si ibnu Seydi Boubacar nu bokk turandoo muy sama xarit muy sama soppe ku mu woon ci alalam ak ci waxam mooy góor su baax yii nekk saw rek di xaj bu suddoo yal na yàlla guddal sa fan te yàlla bàyyi na di sama xarit bee maa monsieur Ndoye maa ngi lay jox cër bi la yàlla jox ak ca dëgg-dëgg usman wax nun la ak jaraaf Momar Gueye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu fu Sénégal daje nag Cap daje fa mënoon li mañ ca timis tey bëgg jot ca ñëpp bëgg noon dégg Tafsir Sakho waaye daal waa Wakaam mag ñi xale yi ñëpp ñun ñoo ngi gërëm ñëpp di so di di sant dëkk bii nag kenn ëppale wu fi ci dëgg-dëgg ab yi toog Habib kenn du sa maam El Hadj bi France jaaxee en trente neuf et quarante cinq ca boobu amuñu sunu indépendance amuñu sunu autonomie interne waturuñu benn këru diine ñun dun ni nan ndaw ca kër Cheikh Seydi El Hadji Malick mën na fay ay wi ñu ca xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar mu geesu ne ah naa yónni sama rakk bu demee man mel dem naa El Hadj wii nag siège u El wakaam sa maam kenn ëppale ko fi tafsir ma yem fii nag ak di gërëm waa wakaam yépp ndax ñëw ñu def délégation ñëw ba ci kër ga waxtaan ak man ci alaaji abdu ne ku yegg soxla ko ndey joor ma kenn ñu soxla càmbañ ji kenn faalewu ma gor su ne da nga bëgg ku jigéen ku ne da nga bëgg ku la yëpp waaye nag Sidi Boubacar ibnu Alaaji Mansour mu ngi nii toog muy Habib sama turandoo Cheikhul xaw mi dafa toog ak Sidi Boubacar mu mag ma xalifa bu tedd ba ni tuuti Alaaji Abdu yegsi ak Alaaji Habib mu ne nuyu naa leen waaye it Alaaji Maalik a ngi di nuyu mooy Mansour mii ak Abdou Abi waaye nag la sëñ Babacar waxoon rek nee na waaye bu ma doon jox lijaasa am ci droit man Babacar si danaa ko toppal jigéen ñi waaye jigéen ñi leen ah waat naa ne bu sëñ Mbaye si amoon droit ci tëkkal leen lijaasa dañ leen tëkkal lijaasa seen ndaje mii yana bu mu nekk seen mujj daje seen sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak Cheikh Sidi Alhaji Malick ak njabootam moo sax seen xol yàlla bu loolu dégg ba bar sax li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defal ci daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaaji Yuusuf nu yem fii ndax timis dafa gaaw lool léegi nag damay jox sama doom mu jox alaaji Tafsir sax محمد ولد عدنان الذي لأجله xuliqa aljinaani wa ala aalihi wa saxbihi zawil xadli wal ixsaani wa radiyallahu an taaji alxaarifiina wa sayidihim wa barzaqihim wa mumidihim xafidi rasulillahi alchamsu wilayati alkubra seydana وسندنا وملجاءنا أبي البركات أبي السعادات أبي الفتوحات أبي الفيوضات أبي العباس أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني الفاطمي di nuyu mbooloo mi ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waxtu wi dafa xat waaye li maam moor wax sunu bàyyi Mansoor wax ko dafa doyoon sëkk li ñuy dolli ci Pape Mansoor li mu wax mooy sëñ Mansoor bal xaw mi moo góor gi Moussa Ndooy bu maam Mbay Ndooy ci fii ñoo ko benn lalu yaay safeetu ñang yar ñoom ñaar ñu bokk date de naissance 1900 Mame Mbaye jël góor gi Moussa may ko Seydi Hadji ñu ne yaay safeetu ñang am nay seex loolu la doon njàmbaas ci li nga wax di wax ne diggante wakaam ak Tiwaawan yàgg na tabaarakallaahu sëñ Babacar si mu ngi diin way sax di wax benn bés bu xat-xat amoon muy wax wa Samba Mbóoj ataa lana xamsiina kama atal xaaji mbay jóob bi arbaina booba jamono xatoon na waaye tabarakallahu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne wakaam ñu ngi am mbégte ci wàcc bi ngeen fi wàcc ci turu ndëg jamia wakaam yëpp lañuy ñuy sama làmmañ di leen sant Mouhamadul Habib tabaarakallaahu yàgg nañ ko wax yàlla na yàlla féq fan wi su naree néew rek yàlla ko yàlla def téeméeri at ak ñaar fukki at yomb na yàlla yàlla ko yàlla def waaye sama nijaay tafsir saaxo dama koy wax sànq may mun a jonn moo ko jur amee te moo ñu meññ ñun ñii njonneen kii lu fi xew mu ñëw am lu mu fi def ñu koy ñaanal yàlla bu baax tabaarakallaahu di ñaan lii ñu nekk nii yàlla nañu ci yàlla rey waaye ndeg te ba ñu cee rey ndeg reyu wañ ak soow ndax soow bu naawee ba dugg ci wañ dañuy seppi di euh, wañ bu naawee ci soow dugg soow dañuy seppi sànni fële waaye yàlla na ci yàlla rey reyu suukar ak soow ni ma ko waxoon ci suba rek am nañ chance nekk ci ak tarixatul ahadiyatul ahmadiyatul ilahiya wa minhatul rabbaniya wa nuzumu malakutiya axtaahu llahu azza wa jalla li xayri nabiyin wa li xayri ummatin uxrijat linnaasi fa tafaddalaha tarjumani alxalq li walidihi wa muridihi abil abbaasi ahmad ibnu mahmad ibnu salimin atijani ñu ànd di wax fa nadrullah wa mawlana mamatan tariqatahu wa ma xaraju malaamu asalaamu aleykum wa rahmatullahi man sama baay maam Alaaji Mansour moo ko yar xam nga ko bu baax li may nett li histoire la mas naa ko li fii benn at sama waajur dafa am ko génn àdduna fii ci Wakaam bàjjen maam Ami Sarr bu maam Roqaya Malick radiyallahu taala anha daal di yónnee gi sama baay ne ko yaay dem Wakaam jaale jilma ndax yaa daan ànd ak sama yaay Roqaya Malick di dem Wakaam ngeen ànd fa di fa dox ay soxla sam papa ñëw kër ga jëppal ànd ak sama freer ci otoom bi ñëwee fii ci mbeddi Wakaam yi dugg ci oto bi jekk sam papa ronko ñu tuur muy jooy jooy yu metti sama mag bi ne ko waa papa looy jooy mu ne ko ay doom fii ma ànd ak yow muy meddi wakaam yii ngay dawal sa oto bi dama fee ànd ak Roqaya Malick si doomu Seydi Hadj Malick Dia yanu ëmbam ba mu boot loxoom ya ma topp ci tànkam ya di dox di ko doxal soxla te yàlla faye ma doom joo xamante ni bii mi ngi yor oto ñuy jaar ci mbeddi wakaam yi kon loolu ba muy am man judduuma kon li nga wax ci maam alxaaji suur si moo tax rek ma lay defal seede boobu dafa am nag benn wax bu ñuy wax di ko naan bal xaw mi mais lan mooy bal xaw mi xam nga bari na kuy wax bal xaw mi xamul luy ku ko tuddee bal xaw mi papa yi sëriñ Pam Portar Kébé maam alxaaji Kébé moo way alxaaji Mansour ne ko yow day alxaaji Mansour taw da jaalati sabran xalbukum salima yaa mujibal xaw mi suudin wal bayaatini yow alxaaji Mansour yow yaay montagne muñ gis nga doju ngor wii ni mu toll mam alxaaji Kebe nee na maam alxaaji Mansour moom mooy montagne muñ te boo jàngee tawdu nag mooy firi montagne bu rëy yow day sa xol bi dafa set wicc yaa mujibal xawmi suudin wal bayaadini yow mi yéem ku ñuul ak ku weex kon yaay sangu gaañ kon loolu moo tax rek may def témoignage jooju bu ñu sëlmalee nag jox bàyyi tamsiir nag mu dugg ci bisam dugg ci gàmmoom bismillah ana imam na ñëw ci kanam imam bismillah